واجعل كلامي راسدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا ñu fas yéene waxtaane lu am solo waaye bala ñu dugg ci waxtaan bi rek ma am lu may leeral tuuti ci wàllu wàllu garab mooy lu demee naka garab bi ñu bëgg waxtaane muy garabu muy garabu paftan suñ borom def ci ay xusuusiyaat yu am solo muy garab bo xamne fo dem ci aduna bi fekk fa muy ci Afrique ak ci Asie lele leeg ñu bari dañuy woru ndax alquran suñu borom dafa wax ci bi téré bi ne wa nunazzilu min alquran ma huwa sifaa'un wa rahma alquran dañ ci wacce lo xamne safara la ak yërmaande kon lolu mom lu leer la legi nak dafa am lo xamante legi la nga deg sax ku naan la walu poudre mo gëna gaaw wala alquran fekk da xamul li xew rek waye alquran bu ko gën gaaw amut ndax wala tur yàlla nekk ci biir léegi nag léeg-léeg nit dana jël garab di ko utiliser comme jël lu mel ne pafsan wala sidéem ak yooyu di ko utiliser benn waay jóge fële ci àll ba ne ko lii kat daa xaraam ndax euh, sirka la wala fekk na xamut ndax garab ji bi ko yàlla di bind bi ko yàlla bind da ko bind dëxëñ ci ay secret yàlla amut jotug di bind lu amul njariñ kon léeg-léeg nit ña ñàkk xam rek ñooy ratatati di wax ci àll ba fekke ne xamuñ ne yàlla lu mu bind doon te mbóot mbóot bi nekk ci duus bi fi ne am na njëriñ bu rëy bu ci nekk boo xam ne boo ko waxoon tey adduna yëpp mën nañ cee jëriñ muy mbóot kon lu waay xamul rek ne ne xawma ko waaye du jëriñ moom ëpp naa wax alquran nag madda maanawiya la lu ñuy bind la wala lu ñuy jàng ci ndox lii di madda tabii di luy sax ci àll boo leen boolee nag dañoo mën a saafara lu bëree bëree bëri ci lañ bëgg a ñëw incha allah leeral ko muy garabu poftan euh, garabu poftan mag ñi dañ ko daan jëfandikoo ngir di ci toj wàllu njabar ak koo xam ne seytaane daf ko topp moo xam faru rab la wala yu deme ne noonu naka noonu dane nañ ne boo jëlee ñaari doomu poftan ñaari doom yi rek nga teg ko jël sa ñaari tànk tegal doo ko ci ba mu toj day fekk ne lépp lu ñu defoon ci yow bu dee kortu la ak yooyu daf koy dindi daf koy dindi euh, kon loolu yaakaar naa lu wér la beneen bi ci des mooy xobu poftan yi nii boo fekkee ku ñu liggéey la liggéey euh, kortu la walla ñu fas la mo xam ci wàllu football lañ la ko defee wala wàllu làmb wala say noona la ko def comme niñ ko defone yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax assixru xaqun wa lahu taasiru lakin bi ma qadarahu lqadiru boo jëlee lu toll juróom-ñaari xob ba paftal xob bu ne nga bind ci tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maaluhu wa ma kasaba xob bu ne nga bind ci saar woo gannaaw bi nga defé bismillahir rahmanir rahim ndax bépp mbir yonente bi nee bépp mbir bu ñuy def ta tambale wuñ ko bismillahir rahmanir rahim neena comme jëm ju amul bop la kon xobbu ne nga bind ci bismillahi rahman rahim bind ci tabar yaddaa ben yon ba muy juróom-ñaari xob nga boole ko def ko ci cin baxal ko ba mu baax nga teggi ndox moomee jëfandikoo ko ci sa wàllu yaram doo ca naan nag parce que par euh, paftan dafa nekk garab boo xam ne dafa am tosi dafa am posen bu bari bu ci nekk dégg nga nga jëfandikoo ko lu mat juróom-ñaari fan wala ñetti fan lu mu fekkoon ci yow ci wàll boobu dana ko dana ko dindi ala kulli xaalim kon loolu lu am solo am solo la beneen bi ci des mooy bu dee koo xamee ne léeg doomu adama ni ma koy waxee dafa am yu ñuy gaar muy sayaatiin yi ak wàllu ay xeetu cat ak làmmiñ ak liggéey dafay tënk doomu aadama bi daraam du mën a sotti mën na ko um um li ñuy wax mooy diw dafa umu maanaam foo jób foo jëm ñu ne la du fii euh, boo demee ci euh, mag ji day wax ne boo jëlee euh, xobu paftan juróom-ñaari xobu paftan mais da dem ba ci garabu paftan yi nii fi mu nekk nga xol xom yi wad yi nga xamne dafa kepp nak bul ko jël yi kepp mom bu leen laal mais yi nga xamne dañoo jaaxaan nga for ci juroom ñaari bant bokoy for tam bul ko jël sa loxo mais da ngay wut ben bant rek ngay jam di jam ba mat juroom ñaari xop juroom ñaari xop yoy bo ñewé bu dé woowagul nga wër ko fo xam ker la mu baña am naaj nga wër ko fo xam képar la amul naaj légui nak nga bayiko ba mu wow nga tuccu tuccal ko debbu ko ba mok nga def ko ci ndox jël xorom def ko ci lolé day dindi bepp yak yak waxuma la umute euh, gi waaye lu mu fekk ci sa yaram ci wàllu euh, gàllankoor yooyu tamit da koy dindi ba ci ba ci ñi ñi nga xam ne seytaan daf leen topp di leen gàllankoor ci wàllu wërsëg wala gàllankoor ci wàllu néew kàttan wala mu gàllankoor leen ci bu dee jigéen mu taw am borom kër mu gàllankoor la ci beneen bu man doon ci wàllu tëju yi rek loolee daf koy dindi ci na mu gën a gaawee da nga baax euh, mag ñi tamit daanañ wax ne bu fekkee dañu laa sàcc ci dara par exemple da tegoon fii sa portable ñu ñëw jël ko ne ko soo coppee yóbbu ko xamu ko jël jëlal tóor tóori paftan yi nga uti ko jël tóor tóori bu uté totor yi bon nga bolé ko ñetti kani kani bu wéx kani bu xonq ak kaani bu verte nga fas ko ci morceau percal wala morceau bu sel nga tek ko fa nga xamanteni fa lañ jëlé fa lañ jëlé loola fa lañ jëlé alal jojja Kiko jëlon bi sobe yalla yalla dana dogal dana ko dana ko war lool nak tektali mag ni la de nga ba bokku nañ ci tamit daanañ ci safara ko xamanteni tawati ndof daf ko dal moy wirdi xel daf ko dal mo xam mu dab ko wala mu walé ko dañuy jël juroom ñaari xop paftan comme ni paftan bu ne ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim basmala juróom ñaar yoon xob bu ne ñu bind ci basmala juróom ñaar yoon ginnaaw biñ ci bindé basmala juróom ñaar yoon ba nopi nak ñu diko ko tak ñu diko ko takal ni par exemple nga jël ben xob def fi jël benen def fi jël benen def fi tak ko ci ci bop bi lolu waxuma da me day dindi ba dé même bu dee méttitu bop bu chronique sax daf koy dindi ko xamné ne dafa amee méttitu bop bu chronique lolu daf daf koy dindi maanaam teg fii benn xob tek fi ben tek fi ben tek fi ben, tek fi ben nga jël dara laxas ko ci ni mu mel ne ko musóoru comme ni nga xam ne bu sa bopp di metti loolu nag day jaaxal léeg-léeg nga wax ko nit koo xam ne amul xel mu defee ne yëfu yëfu dof la fekk déedéet léeg-léeg boo demee ci àll ba nit boppam day metti ñu jël mbante maare wërale ko bopp bi nii takk ko ndax day lugg bopp bi metti lool la sali bu dee ko amee bopp bi metti la tamit boo xam ne daa chronique bopp bi metti bu chronique wutal ñetti xobi poftan yii ñetti xobi poftan xob bu ne nga bind ci law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu qasi'an mutasaddian min qashyati llahi wa tilka al amsalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkarun boo paree ñu jël xob yooyu ñetti xob yooyu baxal ko ci ndox ba mu bax ba yàbbi ba teggee ko ñu bàyyi ba ndox mi di waaj a sedd ba muy bëgg a sedd ba ba nga xam ne bu ñu ko ko sottee du ko lakk ndox mi seddul guy waaye tàngatul jër mu sëgg ñu sotti fii ci ndong gi muy wàcc ñuy raxas di wàcc heure bu xëyee xëyatee mu baxal ko def ko noonu ba mat juróom-ñaari fan bu dee bopp bu chronique la bu ko doon dal li ko sonal moo xam bu dee wàllu saytaane moo ko teg ak yëpp ala xaalin yàlla dana ko tàggale ak loolee waaw bu dee bu dee ki nga xam ne moo di moo di dof bi ki nga xam ne dafa am wér di xel tam bu ñu ko ko defalee kii ni teg taf ko ci xobu ne nga bind ci basmala juróom-ñaari yoon def fi benn def fi benn def fi benn takk fi takk benn defal ko ko ba mat juróom-ñaari fan ba ba xob yi wow rek ala kulli xaalin loolee dana ko dindi ala kulli xaalin bu den tamit tamit ku am métitu tank la leg leg gis ko xam ne sama tank day metti wala day ruux da ngay jël xom postan bu toy nga tek ko ci sa tank ni sol ci kawas solar ci dal baye ba naaj bi tank nga dox ci bo ci doxé lu mat kilomètre nga wàññeekuwaat ñëwaat bo ñëwé nga bayi ko tek say tank ni baye ba mu dalu nga dindi ko boo ko defee ñaari fan yu tégaloo tangoru tank woowee mo xam do ko cité la ko tek wala lu ko mën di tek yalla suñu borom subhanahu wa taala dana ko teggi ci na mu gëna ci na mu gëna gaawé gaawee dégg nga baax kon lolu euh, lolu am solo la mag ñi daanañ ci dindi koo xamante ni euh, euh, ala kulli haal rab daf koo jàpp comme bu dee góor la wala bu dee góor la ñetti xob lay wut bu dee jigéen ñetti xob lay wut duñ koy wut nag euh, paftan li ci gën moo koy wut mag ñi nañu jour wala jour wala jour dimanche bu demee bu dee jigéen mu wut ñetti xob bu dee góor mu wut ñetti xob bu ko utee ba noppi nag daf koy def cig leget da koy def ci leget fanaanal ko ci amul jëlub laay yi mu këpp ko ca kaw jëlub la jëlub leget def ko ci jëlub laay yu këpp ko ca kaw bu ko ca defee ba mu fanaan ba xëy suba nag mu jamb ko mu jamb ko jamb ko am kii mu def noona bu àllarba jotee mu demal wutiwaat ko defaat noonu beneen dimance mu def ko ba muy ñaari dimanche ak ñaari àllarba ala kulli haal bu dee koo jigéen goo xam ne faru rab daf ko tënkoon dana ko bàyyi bu dee góor goo xam ne dañ ko takkoon kortu ba munta joteeg soxnaam ala kulli haal dana ko bàyyi ba ci ku ñu rabtu ba munta am doom jigéen ñi nga xam dañ leen loolu daf koy dindee ala kulli haalin dégg nga bu dee wàllu xas mi tamit baax na loolu xas mi tamit dafay faj hépatite xas mi dafay faj hépatite moom da nga koy def ci ndox tangal ndox def ko ci diko nan kaas suba kaas da fay dindi fay dindi li nga xamne mom modi hepatite di hépatite euh, xas mi lu am solo la euh, ala kulli xaalin bu den ne tamit euh, bant bi la ku lek lu bon mo xam pochene la wala njabar nga lek yu ben yoy bo jele bant poftal nga dagg ko def ko ci ndox baxal ko tamit daf koy dindi wa denga kon lolu lu am solo ci xob lu am solo ci poftal la denga bah. mu dee tam tamit euh, wàllu wàllu ku ñu jabar la tam man na wut juróom-ñaari xob paftan day dem ci juróom-ñaari paftan yu bokkul paftan gu ne mu wuti xob ba mat juróom-ñaar benn bu ne mu bind ci xaala Muusa maa jitum bihi sixru inna allaha sa yubtiluhu inna allaha laa yuslihu amala al mufsidina wa yuhiqu llahu alxaqa bi kalimaati wala koriha al mujrimun bu ko defee mu def ko ci ndox moom it jëfandikoo ko juróom-ñaari fan suñ borom subhanahu wa taala dana ko tàggale ak loolee nga xam ne moom moo ko dal moo xam lu mu mën doon ci xeetu njabar yi dana ko dal dana ko tàggalikoo ak moom bu dee tamit tamit ci wàllu ubbeeku la da ngay wut fukki xobi paftan fukki xobi paftan ngay wut dégg nga benn bu ne nga bind ci suuratul qadri mooy inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi sahrin tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il fajr boo ko bindee ba pare nag nga def ko ci ndab def ko ci noonu ñaa nga jël xaalis def ko ci di ko jëfandikoo loolu tamit dana di di umute dana ubbi wërsëg ci wàllu commerce ak yu demee nekk noonu loolu yu am solo am solo la baax na tamit ci mag ñi daan def boo amee daamar moo xam sareet la wala fas wala li nga xam ne moo di oto yu demee naka noonu warwaay rek nga jël ñeenti doomi poftal bu dee waruwaay bu am ñaari tànk la comme sareet xam nga ba nit fenn fan la ko cat doom nga jël ñaari poftal bu dee sareet la teg benn doom fi teg benn doom fe jaar la ci sareet mu jàll loolee dañuy wax ne dana di gàllankoor bu dee fas wu rafet la wu ñu tegoon bëtit ko gàllankoor bu dee oto tamit nga bañ Euh, ñu yàq ko wala wala taxi bu ñu yàq ak yu def ci ay xeeti njabar ak yu na wala bëtëg laa mi nga ragal ko jëlal ñeenti doomu poftan nga teg ci pneu bi benn teg ci pneu bi benn pneu yi gannaaw yi arrière nga taal oto bi mu jaar ci mu jàll mu tëj ala kulli xaalin dara mënatu caa def gàllankoor xaal kon loolu yu am solo am solo la ci wàllu ci wàllu wàllu paftan euh, kon loolu lañ ci indi woon yàlla yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ñuy jariñu ci yi nga xam ne moom la ñu booleel muy garab yi إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته